sama doomu ndey Abass Fall nee na élection législative yi nee na waa ji bojo bojo boobu dañ ko dóoro dóoro dóor non ma ne ko déet Abass da ngay rafetal wax ji rek koo dóor mën na fayu wante koo duma moom day toog rek te gëm yàlla dañ kaa duma duma duma duma ba mu xam ne ni lu yàlla santaane mooy dem julli ji kon mbokk yi lawoon fa la conférence des leaders nuyu suñu responsable le camarade Khalifa Sall président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi di nuyu bépp leader ci conférence boobu di nuyu la grande coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ne leen mbokk yi man mbir bi lu ma ci xaw a jaaxal rek mooy daf ma def ay ree xam ngeen mbokk yi ku leen sànni xeer ngeen fayu wante ku leen sànni xotti sitéem ngeen faxas Macky Sall lu mu def ni diine ay yeewi askan wi liste national bi du bokk day fooye xelam moo tax yamatuñu ak Macky Sall ci est que dañuy bokk ci élection am parce que dañuy bokk ci élection wala élection am da wax bi leer ay ba ñu ñuy jéem a maasaale duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg pesum kanam borom a koy fajal boppam suñu doomu nday Ousmane Sonko yàgg na leen ko wax ne leen waa ji moom lii rek la xam lii balaa may day ñuy teg seen xaw ma ay police xaw ma yan fii la woon fii rek la woon biig rek mars 2021 yéen ak ñun la woon xamante nañu bu baax a baax a baax kon nag mbokk yi président Habib si wax na ko ma amaat ma neneen nu ma koy waxee ci gàttal Macky Sall ak ñi mu àndal lu ñu wax nee nañu ñoom ci seen xalaat bu gàtt daanaka Sénégal mën na dem coupe du monde FIFA validé équipe Sénégal wante onze titulaire rek onze partant mooy am onze remplaçants yi mën na ñàkk loolu ban FIFA mooy validé équipe boobu fan na am est-ce que mës gis coupe d'Afrique taxaw ne équipe mën na bokk ci élection wante soxlawoo ay partant ay remplaçant rek nga soxla da indi vingt deux joueurs yu mët yu mën a bokk coupe du monde FIFA validé wala nga indi vingt deux joueurs yóbbu coupe d' Afrique mu mat CAF validé nag nee na boobu arrangé wu ko mu neex la dina la arrangé mu naqari la dina la arrangé parce que foofu la ñu toll ak Macky mbokk yi nag ngeen ma wax ci waa jooju ku mu àndal mooy Antoine ñàkk a jom boobu dañu ne wax ji sax duñ ko rafetal Antoine ci boppam il doit partir Antoine il dégage. partir de maintenant, on exige la démission. Et comme il n'est pas capable de démissionner, on exige de Macky Sall qu'il une personne responsable, une personne équitable pour organiser des élections. Parce que Antoine John, Antoine Yaka John, il est à lui tout seul un symbole vivant de l'instabilité qui peut régner au Sénégal. Nous ne devons pas accepter que Antoine Yaka John veut organiser l'élection ici. Parce nga nekk ministre de l'intérieur am nga sax droit am koo àndal wante da ngay mettre les formes c'est la raison pour laquelle comme Antoine Diome nee na moom ñàkk jom bu mu nekkee dérangé wu ko te ñun ñàkk jom bu Antoine ñàkk jom nekkee daf ñu dérangé nous exigeons le départ à partir de maintenant de Antoine ñàkk jom ma bëgg a du waxu politicien Macky Sall na nga bu baax li ngay wax Antoine Diome du fi organiser élection comme na nga créé benn problème nous allons te rajouter un autre problème mu nekk deux problèmes et à de maintenant nous avons décidé à de maintenant que suñu problème yi dañ koy lijjanti ci mbedd bi parce campagne dama fasewul bokk ci élection te ànduma ci ak Ousmane Sonko tête te ànduma si ak Aïda Mbodj jigéen bu mën góor te ànduma si avec tous ces grands responsables le ministre Habib Sy tous ces grands responsables la fierté de la coalition Yewwi Askan Wi dëkk bi Macky ko mbokk yi nag waxoon naa leen ci élection légis euh, locale on waxoon naa leen élection locale yi mooy premier tour bu élection présidentielle bu 2024 parce que troisième mandat dañ koy tere Sénégal waa ji nee na troisième mandat xamul est-ce que c'est oui c'est non ñun nee nañu xam nañ bu baax que c'est non c'est non nag par force comme c'est non par force deuxième tour bu élection présidentielle bu 2024 mooy nekk législative yi wala dañ ko koy bàccal ci ci ci kees yi wala ñu bàcc ko ko ci bi maa ngi leen di gërëm leen sant mbokk yi jërë ngeen jëf. te bu fekkee président Macky Sall fukki weer ak juróom-benn yi ko defee dafa ko dafa doyal da koo bëgg a maye su fekkee da koo bëgg a maye nañu ko wax ñu laaj ndigal ñu joxe ko du dox ci kaw régime li ko fi dese mu jiite ci dal ñu bàyyi ko mu na bàyyi Yewwi Askan Wi mu bokk ci élection législative tey jii may wax ak yéen ci la Omar Diagne nara fanaan soixante-quatrième nuit au niveau de la prison ci jaay doole libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar taxaw ab élection législative boo xam ne partant yi dañ naan leen du ngeen dem waaye remplaçant yi ñoom ñooy dem wala ñu ni partant yi kese ñooy wala ñu ne remplaçant yi kese ñooy dem partant yi du ñu dem loolu président Macky Sall moo ko mos a def parce que dafa tëj xam na ni la la l'intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu daf ko nar a yóbbu ci cohabitation ñu jële fi assemblée nationale tappaleen bi loolu moo tax ñuy wax le ministre de l'intérieur ak ki nga xam ni ñun tuddee ñoom les sept sages ñoom ñoon nar a fitna ci senegal man nag damay wax Antoine Félix Diome Antoine Félix Diome Antoine ñàkk Diome damay damay jël rek benn caricature boo xam sama rakk Abba Mbaye bu taxaw Sénégal moo ko def ndaxte Abba danu moom Antoine Félix Diome sappooti bu ñorul te sappooti bu ñorul dañ koy rënk si saaku ceeb ba mu ñor ñoom nag au lieu du rënk ko ci saaku ceeb ñu bàyyi ko muy lambar lambar ci dëkk bi ak di jaay doole ba ñëpp léegi nag comme ñëpp ne dañ koy jël sànni ci àll ba kon nag abal naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem ma ma daaneel su may daaneel Cheikh Omar Diagne moom ma doon tudd sànq li tax ñu téye ko ci artisans bi mooy ay góor jigéen ñoo toog ca France am ñu leen fi nekkal ci assemblée nationale bi bloqué la proposition de loi criminalisant l'homosexualité góor jigéen yi ni ko tëjal Cheikh Omar Diagne moom mu dem tëj ko moom président Macky la ñu war a voté loi yi fa lañ voté Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi yaa ngi dooleel góor élection législative yi ñu jëm yaa ngi dooleel ngóor jigéen kon nag ànd def leen lu dal jëlee fi président Macky Sall la première marche mooy ñu réaliser un score inégalé ñu am une majorité à l'Assemblée nationale mu waajal nag moom danañ 2024 ñu tegaat réew mi ci yoon ku bëgg a jàng jàng ku bëgg a lekk lekk ku bëgg a faju faju ku bëgg a génn génn Sénégal nekk ci jàmm ndóol gi ci àdduna bi daw bu ko defee ñu am ndam Sénégal nekk ci réew yi ñu gën a fonk ci àdduna bi maa ngi

Abdoulaye Wade walu nuyu suñu ñaari yaay yi nga xam ne ay référence di Adja la Lyon ak li ma leen di wax mooy li pros di wax Ousmane Sonko li muy wax looloy dëgg Macky Sall xamul lu rapport de force Macky Sall xamul lu dul te ñemewu ko Macky Sall la gën a ragal Ismaïla Yassine te li ma leen di wax nii mën naa leen cee indil ay preuve man dama def issue teyal jaar na Diourbel jaar Bambey di dem Diourbel dem Touba jigéen moo ne ko doo fi jaar jigéen Aminata Tall moo ne ko doo fi jaar Ablaye Wade ne ko xaaral ñu yónnee leen hélicoptère parce que bëgguma coow biir Bawol ca jamono jooju fekk na Adja Aïda Mbodj mii daan ko ne ko su Macky Sall jëlee hélico loolu humilier lu ma def dañ may humilier fii ci Bawol damay bàyyi parti ay dëmbooj ne ko fii ngay jaar ñooñu doon ko buntu xatal démb ñooñu la defal mu roog sow tey xëy suba teel téléphoné ay dëmbooj naan ko booy bi ci RFM laa bëgg nga présenté ma ko mu ne ko kooku Ahmed Aïdara la tudd sama doom la may démissionné RFM démissionné mu fekk ko booru Tambacounda muy yelewaan di ma supplier y a que six mois qui nous séparent de la présidentielle Ahmed soo démissionné ma dee yow laa yaakaar ñu mel ni mburoog soow mu may tatafu di ma di ma yelewaan nit kooku tey moo taxaw di segg ay doomu aadama ci presse bi di nga fi wax doo fi wax. Macky Sall nag li tax ma ne leen xamul lu dul rapport de force defante man ñaari exemple dong laa leen di jox gis nga liste bii buñ ko bloqué leader yi la neex ak yéen demandez-moi le pourquoi. dama dem suñ dëkk benn vendredi ma toog président El Hadj Malick Gakou téléphoné ma. ne may est-ce que yëg ngeen ne sous-préfet bu Sam Notaire nee na liste Khadija Maye Koor ak liste Aminata Kanté rejeté na leen ci local yi ma jël oto ñëw ña nekk Géejawaay ak ñi kalaamee ñi kalaamee Sénégal yëpp cour d'appel lañ dem ba des ma j'ai mobilisé tout Géejawaay ma dem fekk ko ba ci biir bureau bureau ne ko barke Muhammad Rasulullah liste yi da nga koy validé par force wala ma taal. Xadija may koor a ngi nii ma ko xoolal validé je ne vais pas aller ma Dakar Guédiawaye rek laa miin par force da koy validé soo ko validé wulee fii ma taal ko tey ma jël sama boo yëpp ñu ñëw wër foofu Ami Kanté di togg ay añ trois jours mu validé ko Macky Sall affecté ko ginnaaw guddi gi boobooy benn ñaar barki Dembo Ndiaye bi ñu rejeté liste Barthélemy Dias le grand maire est allé à la direction générale des élections daal di dugg biir ministère intérieur xeex bi mel ni tulleeg male mu ne leen dinañ ko valider par force te valider nañ eh eh eh day lambatu day lambatu te te ñin ñiy def loolu yëpp ëpp ñu fit Sonko mi ëpp ñu fit Sonko S'il eh, eh, eh, na mooy dañu koy valider par force. wala ñu kattandu ji Macky Sall fii Yoff ginnaaw suba lay ñëw par force wala eh ndig eh man man eh conférence des laa ne je suis signataire Khalifa Sall AVM lañ koy laaj leader la ñun ñëpp ay lañ man signataire laa ndigal li maa ko joxe validé par force wala ñu jëli Macky aéroport validé validé validé validé Macky Sall xamul droit Barthélemy Dias nee na nangu na sama ndigal kon Dakar nangu nañ sama ndigal mani mani mani mani dama ne ay eh fii ñun ñoo ko moom fii fii suñu suñu neexee dañoo toog fi ba vingt may ma son préfet et son ministre de l'intérieur ne connaissent pas droit loolu moo tax waxuñu droit ñu naan ñu 19 heures droit lañ ñu jox demuñ fenn bougé wuñ un lu tax baadoola baadoola boo nekkee baadoola da nga koy wan ne yaa ko gën a doon baadoola te nous avons un régime baadoola pire Macky Sall au muy créer ay emploi comme ses ex africains Didier bu yàgg eh ma ni Macky Sall au muy créer ay emploi muy lor ay doomu aadama mi ko njëkkee ci président Ousmane Sonko yow nga yor ay inspecteur des impôts ku mel ni Mambo Diaw ku mel eh, eh. man mane mane yor ay inspecteur des impôts yu mel ni Mame Boye Diao yu mel ni Habib Niang yu mel ni sa euh, Saloum mi demoon Kaolack ay inspecteur euh, Cheikh Ba Cheikh Ba yu mel ni Amadou Ba waaye yow nga yor inspecteur des impôts yooyu ñuy politique jënd sa carte de membre waa ji ne du ma jënd sa carte de membre nga ne ko dama lay dàq lii lan mooy ndeyam dàq Ousmane Sonko ne ko dootoo fi liggéey ça c'est quoi ça yamu ca capitaine def enquête enquête boo xam ne ñëpp le capitaine Touré le capitaine Touré le capitaine def enquête ñëpp xam ne lépp ay complot ay sos la pour ngay éliminer yow ci làmb ji koo bëggul bëreel nga ne doo bëreeg moom nga xëy signé ne dàq woo gendarmerie Macky Sall moomul réew mi. yemoo fa Macky Sall nga infiltrer la presse je vais m'adresser benn petit mot à mes collègues journalistes la presse au Sénégal comme la justice elles sont indépendantes c'est aux acteurs maintenant de prendre leur indépendance man si ma nekkoon di fa liggéey waa ji mouvement la yor mu taxaw ne ne gëm sa bopp ma taxaw ne ne yeewi te dama gañe dama gañe maa gañe ko Macky Sall ba ci kaw dóor def ay pexe ànd ak Babacar Diagne moomu nga xam ni le sale boulot lay def pendant 40 ans naa fekkam boobu ne génnee leen Ahmed Aïdara ci ëttu presse Babacar Diagne aussi nii ay naa fekk jàppale ko ñu def lu ni ñuy segg ñu ak lii dugg na fi gën a fi soyez digne kii yàlla moo fi ne ñu leen di gërëm.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 mooy Touba laa jógee dinaa gañe Touba insha allah yéen askan wi yéen lay waxal bis ni ki tey moo nekkoon le huit le huit juin le huit mars bi passé ci lañ toroxaloon Macky Sall ci kanamu Ousmane bu leen fàttali le bi ci la senegal amoo leen bëgg.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 ne nañu aslam mois de octobre le 10 octobre loi bi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di rafetlu taxawaay bi di rafetlu détermination bi ku yegg ci jàkkaarloo ak kanam yii. xam ni ñii ils sont déterminés déterminés pour que Yewwi Askan Wi bokk ci élection yi déterminés pour que le président Macky Sall mën abal ñu déterminés pour que la justice mën a régner au Sénégal dama bëggoon nag ñaan leen lenn parce que nit yu baax ngeen nit yu jub ngeen nit yu xam seen bopp ngeen ma leen di ñaan toujours ñuy ràññee suñu combat parce que ñun noo organiser te sànq dafa am suñu ay xarit yu ñu woo ni ci njëlbeen bi ñu yegsee dafa am benn journaliste bu TFM am incident bu fi am ñu bëgg déglu leen ma on est déglu leen ma li ma bëgg wax li ma bëgg wax li ma bëgg wax gis bi may nekk armée bi may nekk armée bi may nekk armée bi may nekk armée d'officier de réserve dañ ni ma il faut jamais se tromper de combat li gën a ci nit mooy tromper wu de combat suñu combat c'est avec le président Macky Sall suñu combat c'est avec Antoine Diome suñu combat c'est avec le Conseil constitutionnel donc ñooñu ñoo mérité suñu mobilisation kon ma bëgg la presse ñu delloo leen njukkal tout le temps bu ñu ñëwee des sur le chemin bu ñuy mener vers le départ de Macky au nom des leaders di jéggalu toute la presse di wax nañu rester combat pour le départ de Macky Sall li ci des mooy li ci des mag nee na mu bëgg ko ak mu bañ ko Yewwi Askan Wi day bokk ci élection législative yi gis nga gis nga yabaate weesuwul bi listu Ndakaar amee problème de parité est-ce que Antoine Diome dafa génne siso est-ce que dafa jël taqali titulaires yi ak suppléants yi te pourtant les suppléants respectaient la parité mais génnewul ciseau taqali ko bi Benno Bokk Yaakaar amee problème mu parité mu wut ciseau taqali ñaari liste yi ni na bii jàll bu bii jàll waa mais kii ku mu yàpp ñun suñu kanam yi ñàkk fayda na ci feeñ wala déet xool suñu taxawaay xool ñu ñàkk fayda daf ci feeñ wala déet leen xool ñàkk fayda da ci feeñ wala déet kon ci loolu ngeen jàpp ni élection dina am nangu ngeen li ci condition yooyu élection dina am Macky Sall yow laay waxal nag parce que xam naa la bu baax Cheikh Tidiane Dièye mi ngi koy wax léegi 2011 fii la ñu doon taxaw ak moom fii fii fii Barthélemy fekke na ko fii ngeen taxaw laa doon taxaw di jàkkaarloo ak moom mu yor benn mer gàddu di ko bokk mer gàddu ni il est prêt à aller en prison est-ce que mos ngeen ko dégg mu dem prison bu grenade yi tàkkee ngeen gis ko mu daw kër gu mu njëkk dab ci kër ga lay dugg kër ga lay dugg xaar ba saxaar si wàcc mu génnaat nànk daw dem Mermoz mais kooku ngeen foog ni mën na jiite suñu réew xoolal Macky Sall jeex na tàkk. merci di gërëm di sant suñu mbokk yi nekk Italie ndaxte tey le 8 juin 8 juin fële Brescia bis la bi nga xam ni ñoo ngi ko baaxee Serigne Mountakha foofu boo dee xool férié la kon suñu mbokk yi fa nekk ñëpp ñoo ngi leen di ziar di ziar Serigne bi. di ziar kilifa diine yëpp di wax suñu respect di ñu am tamit ci Cheikh Mahi Niass ci li nga xam ni def na ko keroog ci biir Afrique di daaneel ci ñooñu li ñu def kilifa yu baax yooyu am ñu ñu mel ci biir réew mi di dem di régler ay problème ci biir adduna bi ñu leen di jox ay jours fériés ci biir adduna bi président Macky Sall quitté Sénégal dem di seeti Poutine dëkk bu nekk en crise ñu ngi nekk en paix mu koy yalwaani mburu xam nga kooku yëpp nañu waay xam nga kooku yëpp na kilifa diine yi di wër di régler ay problème ci adduna kon kooku na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem merci merci dina dem incha allah rabbi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 dama bëgg ngeen xam ne li leen leaderu Yewwi Askan Wi di bëgg wax mooy liste nationale dañuy bokk élection yi dañuy bokk te dañ koy gañe ci kàttanu yàlla te Ousmane Sonko mooy doon suñ tête de liste maa leen gërëm leen merci merci ndigal may leen ñu rek tuuti sama kàddu bu njëkk maa ngi koy jagleel Firawna Macky Sall li may njëkk a wax Macky Sall mooy opposition bi mu ne woon dina ko réduire à sa plus simple expression voici la plus simple expression de l'opposition Sénégal su doon ku dese tuuti xel war dina lim ko war a delloo si mooy mu xam du yàlla du yonent mu fàttaliku ni nguur gi donn ko ci way juram nguur gi foqatiwu ko ak doole nguur gi peuple bii moo ko ko dénkoon te peuple bi nee na février 2024 il ne sera président la république du mooy ku teew fii tey rek ak ku fi nekkul di seetaan ci biir Sénégal ak bitim réew dama bëgg ñëpp ànd ne Macky Sall na bàyyi Cheikh Omar jaañ mu dellu ci njabootam. ñi ko ñi ko ngemb mooy ñi nga xam ne. Cheikh Omar Diagne dañ ko jàpp parce que dafa wax lu mu warul wax ay tarixa waxuñu dëgg Cheikh Omar Diagne taxawaay bi mu am contre franc-maçon ak homosexualité moo ko indi lii ko dal nii ba tey ñu xañ ko njabootam lu mat ñaari weer ak lu tegu yii mooy andi fitna ci dëkk parce que jamono jooju ay nit ñu sàcc xaalis réew mi barki démb dégg ngeen ab géwélam nga xam ne riite ak xalam lañ ko xamee woon tey mi ngi yor ay milliards denc ko ci ay chambre ñu koy sàcc te OFNAC waxul CENTIF waxul procureur waxul kenn waxul parce que géwélu Macky Sall la est-ce que loolu jaadu na ñu jàpp koo xam ne lañ koy jiiñ mooy nee nañu dafa def publication ci page Facebook am ne ko ràpp ci kaso bi parce que ñii nga xam ne ñoo yor agenda góor jigéen ñoo ko sant Macky Sall na bàyyi doomu jàmbur mu dellu këram ñetteel bi ma bëgg a wax parce que dafa am lu ma gis dañoo am nag daje bu am solo daje bii artu la ci Macky waaye tey lañu lancé suñu pré-campagne wala suñu campagne kon dama bëgg ngeen déglu ma ci lu am solo dañoo def coalition boo xam ne diggante grande coalition wàllu Sénégal la nga xam ne président Abdoulaye wadd moo ko jiite. ak suñu coalition ñun muy Yewwi Askan Wi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall mooy président conférence des leaders. li ma bëgg ngeen jàpp yéen mooy dañoo dem ba daj ba xool ba xam ni ñun ñi ñëpp nag. benn problème lañu ñu am benn noonu la am te muy noonu Sénégal muy Firawna sal ñu xam ni déglu ma rek ñu xam ni fii rek ñu xam ni fii rek xam ngeen may ma may ma ñu xam ni xeetu élection yi ñu jëm muy bi ñu jóge ak bi ñu dëgmal dafa di élection yoo xam ne raw gàddu la moo tax ñoom li leen gën a soxal mooy nañu fexe ba opposition bi continuer di diviser wu. bu ko defee ñu ne Ousmane Sonko moyetul PDS PDS moyetul Khalifa xalifa moyetul PRP ñun ñu continuer di tasaaroo ñoom ñuy bennoo di ñu duma continuer tey réew mi di ci def leen neex loolu tax ñu ne nañu ànd kenn ku ne ci ñun yor na kuréelam. kenn ku nekk ci ñun yor na projet kenn ku nekk ci ñun yor na ay ambition waaye su dee dañoo bëgg a Macky Sall continuer toog ci bopp réew mi nañu continuer tasaaroo ku nekk nekk topp sa yoon. kon bu ngeen d'accord ngeen ni ànd bi lu war la kon dama bëgg a bis ni ki tey ku fi bokk yeewi na jàpp wàllu ku fi bokk wàllu na jàpp yeewi xam ngeen ndax lan. ànd campagne gis ngeen campagne bi Yewwi du jaar nii Wallu jaar nii ñun ñooy bokk campagne ndax département boo dem su dee Yewwi moo fa jiitu Walloo ngi ci gannaawam ànd ak moom ci list bi dee Walloo jiitu Yewwi ngi ci gannaawam ànd moom ci liste bi kon suñu destin daf yàllaa ko boole kon bis tey bu leen def xaj ak seen diggante Yewwi ak Wallu benn liste bi la loolu nag moo tere ñenew Macky Sall lii moo tere Macky Sall nelaw nan la waay buñ ko yàq buñ ko yàq nañ ko defar nañ ko dëgëral nañ ko dooleel bu leen kenn yóbbu ba ngeen naan tey ñun PDS néeg nii kon ñun dañuy def néeg PDS wala ñun diw ak nii déedéet fii mu toll nii benn bi la ak benn objectif mooy 31 juillet heure bii bu ñu commencé waññi ñëpp xam ni Macky Sall abal nañu. ngeen may ma ngeen may ma ngeen may ma ma rendre hommage président Abdoulaye Wade dinaa ko rendre hommage xam ngeen ndax lan man waa PDS yi ñu ci bari miinu ma leen de. ñi ma ñi ma àndal assemblée xam naa leen ñenn ñi ci fan yi ak suñuy waxtaan xam naa leen waaye président Ablaye Wade am na lu tuuti lu ma xam ci moom ndax nekk naa man mi ci jafe-jafe jël sama téléphone woo ko boobu mu ngi Qatar ma ne ko lii de am na mu ne ma defal conférence de presse boo demee neen Ablaye Wade nee na ma lii wax ji jeex te bi ma ko defee noonu la wax ji jeexee kon tey dinaa ko delloo njukkal te ba léegi mu noon na bank ay yoxoom ndax ay atam laaj na ko waaye mi ngi ci combat bi te dina ñëw jàpp ci combat bi kon lii li tax ma koy rendre hommage te dinaa ko def pour Abdou juuf def ko pour Senghor xam ngeen ndax lan ñooñu ñëpp kenn mënu fee tere nit nekk candidat xañ nit candidature ci Macky Sall la xewee fii Sénégal limal leen ma kenn koo xam ne Abdoulaye Wade wala Abdou juuf wala Senghor tere na ko mu nekk candidat lan moo tax ñu wara nangu Macky Sall def ko da koo def ci Karim Meïssa Wade ñu seetaan mu dellu si def ko ci Khalifa Sall ñu seetaan mu fas yéene woon ko def février 2021 ci Ousmane Sonko génne ko du fi amee est-ce que loolu est-ce que loolu ñu ko bañaloon ci jamono jooj dinañ ko ko nangul tey est-ce que dinañ ko nangul Macky Sall moom nee na dina dem élection législative fii Sénégal ñi jiite PDS duñu bokk ñi jiite taxawu Sénégal duñu bokk ñi jiite Pastef duñu bokk ñi jiite ànd duñu bokk ñi jiite PRP duñu bokk waaye moom ñi mu àndal ñëpp dañuy njiit dinañu bokk est-ce dinañ ko nangu. kon kon wax ji foofu la Macky Sall tey ma bëgg a wax ak Sénégal yëpp may leen ma rek le Sénégal est en danger. benn danger mu am ci Sénégal mooy Macky Sall fii léegi Macky Sall ngi jiite Sénégal jàmm du am Sénégal stabilité du am Sénégal. lan mooy bilan Macky ci Sénégal moo wax leen bilan lan la Macky delloo na gannaaw les libertés politiques tëj na ñoo xam ne defuñu ko dara ànd ceeg coxar bu kenn mësul gis tëj na euh, euh, Karim tëj Khalifa Ababacar Sall doon def ay pexeem pour tëj Ousmane Sonko ma wax leen ni ma wax leen ni Barthélemy Diaz mii toog fii daje nañu fii ci place bi daaw defe naa mu ne septembre la Macky Sall def plan pour tëj Ousmane Sonko ma ne ko Barthélemy dalal naa sa xel fii rek ñi ngi dund Macky Sall du tëj Ousmane Sonko su ko Ousmane Sonko tëj téeméeri téeméeri Macky Sall ak juge am ak administration ak police am ak gendarmerie am mënuñu ñoo tëj kaso. waaye ma wax leen ma dellu wax leen tamit ma dellu wax leen tamit li ma leen wax am na solo de déglu leen moom dama ne Barthélémy Diaz mii. une minute rek déglu leen ma. dama merci merci may ma une minute rek balaa muy lëndëm ñu teg ñu tënk affaire bi. dama leen wax Barthélemy Diaz mii xam ngeen luy pexe Macky Sall ci moom. keroog li ñu génn mobilisé wu moo tax ñu tiit dàq affaire bi. may yégal leen ni xam ngeen lu ñu nar ne ko avec sursis pour nangu mairie Dakar ci loxoom ma ne la Barthélemy mairie Dakar bu soobee yàlla juróomi at yi di ñëw maireu mairie Dakar Barthélemy Toye Dias day tudd bis bu ne day nangu mairie Dakar ñu nangu palais bi ci moom amul lu ñuy lam Macky Sall gannaaw dëj ak complot ak sàcc alalu réew mi Cheikh Tidiane Dieye wax na ko léegi Macky Sall lan la promettroon sénégalais ci corruption fan la ñu toll ci corruption tey ci Sénégal xaalisu réew mi yépp mi ngi seen i coffre fort gis nga bisu manifestation amatee ba ngeen dajji ci seeni kër ay milliards ngeen fay fekk ay milliards yi milliards ci ñu jëlee ci keesu état bi ngi ñëw mais lan mooy bilan Macky mooy suñu pétrole ak suñu gaz Macky ak rakkam sàcc nañu ko jaay ko ci anam goo xam ne Sénégal daanaka amu ci dara bind naa ci téere tey la gën a actuel te mi ngi continuer di jaay pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi loolu mooy bilan Macky Sall lan mooy bilan Macky Sall mooy hôpital bu baax amul Sénégal suñuy doom a ngi lakk ci biir hôpitaux yi Macky Sall yëgalu ko yaramam moom jàpp na ni lépp xaalis la fu ma dem rek naa joxe xaalis wax ji jeex na école publique amatul Sénégal est xam ngeen ni jamono jooju tey jii may wax ak yéen fële ci kanam RTS dem na lebi 33 milliards pour ne dafay tabax building building 33 milliards bu mu leb ak banque boo xam ne rakkam moo ko lancé woon muy banque de Dakar pour ñu tabax 33 milliards bi dañ ci boobu jamono hôpital bu baax amul senegal loolu mooy bilan Macky Sall Macky Sall faalewu leen am ngeen liggéey wala amu leen ko du yoonu Macky Sall yéen a ngi faju am déet yoonam newu ci. yéen a ngi am problème ñi ngi leen di agressé ci mbedd bi yoonam newu ci école bi tëj na yoonam newu ci Macky Sall moom dong ak njabootam ak géwélam la tal moo tax lii nii suñ ko bàyyee mu romb lii nii suñ ko nangulee Macky Sall nañu xam ni am nañu ab firawna boo xam ne 40 ans yi di ñëw moo fi toog ba dootul mun a dox may wax tamit ne waa Bennoo Bokk Yaakaar temps yëpp dégg nañ leen ñu ne dañuy menacé Benno Bokk Yaakaar yem leen duñu seen morom xajuñu ci yéen. Benno Bokk Yaakaar te nag dégg ngeen ma baax seen wax yëpp seen wax yëpp mooy l'État n'a a prendre ses responsabilités ñoom ñooñu où sont-ils s'ils sont garçons nañu génn dañ ñëwoon dañuy def contre manifestation anañu muus sax muus bu marom be sax doo ko gis ci tali bi ñeneen la yaakaar alkaat yi ñoom la yaakaar balaa may dee ñu dem génne seen relique politique yëpp ay Moustapha Niass nga xam ne toute sa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xam ne zumbi la kenn xamatul fu mu nekk ay Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñi balaa ngeen di dund balaa ngeen di judd yéen ñi nekk fii Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niass ñi ngi doon dundee état senegal ba tey ngeen toll ni ñi ngi dundee état Sénégal danañu dem bay doxee békki dañuy dundee état senegal ñooñu tey ils ne représentent aucun pour le pays ils ne représentent aucun espoir pour le pays suñu desee woon tuuti ngor dañuy retraité dem toog yor seeni kurus te bàyyi réew mi ndax lu ne am nañ ko ci réew mi ñooñu tey ñooy génn naan dañuy menacé dama ne jàmm la woote waaye jàmm ñaar a koy dox ñi ko séq Macky Sall naafeq gi ne ci moom ma koy wax nag suñu papa yeeg suñu yaay yi toog ci kër gi parce que léeg dañ leen di nax soo waxee ñu ne waa ji dafa yaru at mii kër la xam nga mii kër koo gis mu dem ci télé yi di saaga Macky Sall ko jox xaalis ne ko demal saaga Ousmane Sonko bu paree mu recevoir ko palais moom mooy recevoir saagakat palais de la République moom Macky Sall ñun de kenn mësuñoo dégg ñu saaga waaye suñu fulla dinañ ko wax ba mu mat sëkk te lu ñu wax loolu la ñu gëm kon may wax sénégalais tey le Sénégal est en danger te benn danger moom la am mooy Macky Sall lan mooy bilan Macky Sall lu ñu mësul xam Sénégal tey ngay gis Sénégal ku jóg taxaw saaga nit ci waasoom ci ethnie bu mu bokk ci région bu mu bokk tey ngay gis ku dem télé wala dem rajo wala dem site internet saaga nit dugg ci vie privée am saaga ndeyam saaga baayam ñuy dund ak ñu dul dund tey ci Macky Sall la amee musul am senegal lan moo raw loolu ci violence te ñu koy def ñëpp mënoon nañ ko régler ci benn seconde mënoon nañ leen régler ci benn seconde musu lañ musuñu leen jox digal ne leen attaqué leen loolu mooy bilan Macky Sall waxu waxu ethnie waxu ethnie waxu tarixa waxu diine Senghor dem na ba jóge fi musul am Sénégal Abdou Diouf dem na ba jóge fi musul am Abdoulaye Wade dem na ba jóge fi musul am waaye tey gis ngeen fi senegal toll mënuñoo am président bu yées Macky Sall fii ci Sénégal moo tax Macky Sall moom mooy des ci réew mi ñu ñu jóge fi wala ñun ñu toog fi moom mu jóge fi waaye mënatul ne may wax tuuti it ndigal gi mooy mujj xaar rek may wax tuuti nag ci administration ak justice administration ak justice wata wat réew mi moomu leen ko de ku jàpp ni nee nañ la monsieur le juge solal la ab toos bu xonq jox la xaalis bu bëri jox la ay woto nga bëgg a taal réew mi yow la ñuy taal loolu dina jeex Sénégal de constitutionnel juróom ñaari nit moomu leen nit ñi bu leen ñu fontoo juróom ñaari nit war a taal réew mi loolu est-ce que nañ koo nangu ñoo ngi woo justice nañu delloo si seen xel parce que peuple bi moom moom mooy souveraineté moo voté loi yi à l'Assemblée nationale quand le peuple dira non et il déjà dit non taxaw ci kanam peuple yi peuple jaar sa kaw kenn mënu ci dara may wax tam waa force de défense et de sécurité yéen ñële toog na le bu leen topp seeni kilifa général Moussa Fall bu leen ko topp parce que intérêt boppam moo tax mu leen war a jox ay ndigal yu ngeen warul topp ci réew mi ngeen dëkk tey intellectuel ngeen vous avez fait les banques vous avez été à l'université xam ngeen ni Macky Sall li mu leen def loo du dëkk xam ngeen ko kon buñ leen yebal naan leen dem leen maté dem leen dóor dem leen torturé ay nit ngeen du ngeen ay bàyyi ma te lu metti ci réew mi yéen la gën a méttee su ngeen liggéey ba wàcc da ngeen dem seen kër léeg-léeg dépense bu ngeen jox seen jabar sax du ngeen ko am kon buñ leen transformé en des objets de répression bañ na noonu bu leen ko nangu quand un et manifestement illégal il faut désobéir loolu la yoon wax commissaire yi yàgg ak général Moussa Fall nee ngeen yéen ñuy surveiller ñu ngi leen di surveiller ñu nit ci dëkk bi ngeen dëkk ngeen dëkk ni amee njaboot ngeen amee njaboot yéen ñuy surveiller ñu ngi leen di su ngeen ñu menacer ñu menacer leen parce que dafa doyaan ah. kon li ma bëgg a wax ci gàttal mooy Yewwi Askan Wi bu listam bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk ci élection yi bu bokkul ci élection yi. Macky Sall du bokk élection yi te désormais nag li ma leen di wax œil pour œil dent pour dent bu leen njëkk a dóore de bu leen njëkk a dóore bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen dóor xam nga nag la loi xam nga lu mu wax loi bi bi ñu voté ak. téere yi ñu gëm xam nga lu mu wax dafa ne buñ la dóori booy fayu na nga fayu lu tolloog liñ la dóor waaye dama leen ne buñ leen dóoree da ni di fayu ba bis bu ngeen ko defee dóor dootul am kon à partir d'aujourd'hui dama bëgg mu doon une mobilisation permanente Macky Sall son pied notre pied jàmm dootu ko am fii 16 yi di ñëw Macky Sall duñ ko may jàmm fu mu génn nañ ko fa fekk fu mu dem na ngeen ko yooxoo parce que dafa jar yooxoo matul président il est illégitime Benno Bokk Yaakaar gannaaw force de défense de sécurité ay nervi la ñu yaakaar nervi ban nervi moo mën a ñëw attaqué lii te nervi yëpp nag maa ngi leen di mettre en ndax xam nañ fu ñu dëkk xam nañ fu ñu dëkk xam nañ ñoom ñooy ñan nervi bi yëpp nag recensé nañ leen nervi bi fi attaqué te boobu lay gën a attaqué ma daaneel nag wax leen nii nee nañu am nañu infiltré suñu manifestation bii ñu ngi wax naan ndigal bi mooy bu ñu paree fii dem pale demuñu pale amuñu benn soxla ci pale ndax bu dee ki fa nekk buqat na buqat boo xam ne manifestation mu daw ci Macron laqatu ñu fay dem. lu am après manifestation bi may jël opinion bi yëpp à témoin jógewul ci ñun bu manifestation bi jeexee kenn ku ne fa nga ne na fa ñibbi tranquillement parce que xeex xeex bi day tàmbale kese ah te ñu Macky Sall fii ci Sénégal 16 mois yi ko dese ci nguur gi bu ko buggee yeggale ci jàmm. na respecté sénégalais yi gi mooy liste yeewi askan wi ànd ak liste wàllu Sénégal dañuy ànd ci élection bi et au 31 juillet au 31 juillet Macky Sall bu amee 50 députés assemblée nationale record lay doon bu ñu génnee ci loolu nañu xam ni enjeu bi du rek dem jël assemblée nationale ndax buñ ko jëlee. coow li dina bëri de ndax commission d'enquête euh, d'enquête parlementaire yi na takarnase sàcc pétrole bi sàcc suuf si sàcc alal bi sàcc budget bi yëpp dina leer waaye ñaareelu enjeu bu am solo bi xam ngeen lan la xam ngeen lan la donte loolu soxaluñu parce que constitution Sénégal fi mu wuteeg bu bu bu bu bu les maîtres de Macky Sall mooy soo demoon France c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation fii nag dañ ne c'est le président qui définit la politique de la nation mais li leer ba leer mooy suñu gagné assemblée nationale coalition wàllu yeewi ñooy former gouvernement daal di commencer redresser Sénégal avant même 2024 te bu boobaa nag te bu boobaa nag. li ma gëm mooy Macky Sall dina takk ay kaakaam ñibbi ñibbi ñibbi ñibbi Mermoz kon bu ñu caaxaane di bu ñu nangu la forfaiture du conseil constitutionnel Antoine Diome du ma wax ak moom parce que ab poussin bu immature la bu teg ko fu ngooru teg est-ce que pare ngeen pour combat boobu lan la leen combat boobu jaral lan la leen jaral laa bëgg a dégg lan la leen jaral kon bis ni ki tey restez à l'écoute parce que dinañ leen jox ay instructions yu leer yu limpide parce que mbir mi jeexagul bu dee dem nañu ba gis ni nag nee nañu liste nationale Yewwi Askan Wi du bokk ci élection yi fii Sénégal élection du fi am walla walla suy am dégg leen ma leen wala suy am fépp fu Benno Bokk Yaakaar génn ne day dem wote ji def leen ak ñoom noonu foofu laa yem